الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وبعد حييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk yi ginnaaw bi ñu sant yàlla subhanahu wa taala sant boo xamante ne am na fu mu commencé waaye amul fu mu yem di julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne moom mooy gën di mu def di seere ne amul lenn lu ñu war a jaamu jaamu ko di jëriñ ñàkk jaamu di lor dul yàlla subhanahu wa taala di seere ne Muhammad yonent yàlla la di ndawam ginnaaw la ñu ngi leen di nuyu nuyu bu gën ci nuyu ma asalaamaaleykum wa rahmatullah di la di dalal suñu gan yi fi nekk ak suñu yaay yi ne ak suñu mag yi nekk di leen wax ne tey thème bi nga xamante ne moom lañu Oustaz Saïd di war a defal moom mooy al inxiraafatul xuluqiyya moom mooy les démorales mu nekk thème boo xamante ne thème bu am solo waaye nag dañuy naan tuuma ne du teew bi na daal dama ci guddal dama ci xóotal damay bàyyi Oustaz mu dugg ci thème bi mubashara
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Ikhwat al-iman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mbokk yi ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala ñu ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mu nekk jaamu yàlla bu ñu yéenee def ko mu nekk waxtaan wi nga xam ne dañ koy fàttali sunu bopp di leen ko fàttali mbokk yi xam ngeen ne lu amul benn sikki sàkk mooy anna saadatul fard wal jamaa muqtarinatun bi xuluqin xasan li texeloo adduna bi di texeloo mbooloo yi di texele di texeloo individu yi yàlla mu ngi ko def ci jikko ju rafet waaye wa anna shaqa natijatun li suuil xuluq texee di yàlla ngi ko def ci jikko ju yàqu looloo tax borom bi tabaraka wa taala mu yónni yonent yi yonent yi ñëw di tegaloo ku dem keneen ñëw ku dem keneen ñëw lan mooy seen mission pour ñoom yonent yi ñu jàppalante ci château boobu tudd tudd jikko kenn ku nekk nga ñëw jàpp ci pour liggéey bi mën a taxaw jikko ju rafet benn immeuble la bu yàlla yónni yonent yi pour ñu ñëw tabax ko aadama moo njëkk a ñëw gis gas fondement bi siis ñëw samp poto yi muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ci mujjee moo ko péntir mu des rek kiñ ko doon tabaxal dem toxu dem dëkki jikko jooju yonent yi ñëwoon jàppalante ci pour jikko jooju doomu aadama mun koo am dañu toll ci jamono bii mu nekk lu yàqu yàquwul nag yàqu goo xam ne hasard la mais dañ koo yàq li ko yàqit ak ñi ko yàq ay étude lañ ci def def ci ay projet dugal ci am ay jumtukaay def ci ay moyens ba jullit yi ñàkk seen jikko nga gis jullit di julli mais day fen nga gis jullit di julli mais day sàcc nga gis jullit di julli mais rambaaj la nga gis jullit di julli fekk naa fiq la ñu nekk dem dem dem ba deseetuñu dara nag léegi ci jikko lislaam yi dara lañ deseetu su may faral di def waxtaan yu mel nii ak mbokk yi du du may du may du may génne thème bi ci mouvement islamique parce que dootul amati sens ñun ñi nga xam ne ñun ñoo war a nekk royukaay yi tey ñun la suñu jikko yi gën a yàqu ñun ñu war a nekk modèle yi ci góor ak jigéen ñun la suñu jikko yi yàqu ba mënatuñu jëriñ société bi kenn mënatuñu xool ba gis sunna sama portable mi ngi nii numéro bi ñu ma doon woowee léegi léegi effacé ko ñu ngi ma woo ay une heure trente su ma juumulee xooluma heure bi mais côté yooyu la ki ma doon woo Europe la ma doon woowee nee na ma démb dama xëy tubaab bi may liggéey loolu daan may woo bureau man ak moom ak yaay la mu ne ma yow ban genre nit nga ma ne ko mais ci lan mu ne ma non man dama la gis ne daal yaa ñeneen ñi nekk fi niroo te sax sa kanam gi yow mi ku la xool rek xam na yow doo nitu kese kese léegi dama bëgg nga expliquer ma lan la moo tax ma ñëw fii man ak yow ci sama bureau bi pour nga wax ma ko mu ne lan nga daal yow lan nga yow lan nga waa ji ne ko man comprendre ma loo bëgg a wax mu ne ko non yow dafa am beneen fii booy dund bu bokkul ak nit ñi wala dafa am yooy def daal yoo xam ne moo la tàqal ak nit ñi waa ji ne ko waaw mu ne ko lan ngay def mu ne ko damay dund sunna tubaab bi ne ko luy sunna mu commencé ne ko damay dund dund prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko kan mooy kooku mu expliqué ko tuuti nit si kooku baax la dama bëgg nga utal ma ay livres yi wax ci kooku ndax ma mel nii nga mel kooku lan la wane foofu fa muy liggéeyee kooku lan la fa wane fa wane lu baax fa wane jikko ju baax ci lépp nag ci waxinam ci doxalinam ci jëmm ci lépp te nee na avant loolu am na ku njëkkoon woo kooku moom moom ñoo bokk nii liggéey rek ku jigéen tubaab bu jigéen ne ko yow am nga jabar mu ne ko wuy am naa jabar mu ne ko yow ñeenaa sa jabar mu ne pourquoi mu ne non dama xam ne yow ni nga mel nii jigéen bu la am rek am na jëkkër benn tubaab moo ko njëkk a wax avant ay at nee na nee na démb patron moo ko wax ko lii loolu moo lay won ni ñun dañu yor mission yonent bi saa salaam ba mu yoree saxaaba yi ba pare dafa ne ashaabi kan nujum kullu maqtadaytum iqtadaytum kullu maqtadaytum ihtadaytum samay saxaaba ñu ngi mel ne ay bidéew ku ngeen ci mën a topp di ngeen di jub yàlla tabaraka wa taala daf ñu yónnee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu nekk modèle yàlla defar ko ci lépp yonent bi amul lu manqué ci moom léppam mat lépp laa wax amul lu manqué léppam dafa mat yàlla daan ñuy joxoñ baaraam ne wa in tuti uuhu wa in tuti uuhu tahtadu su ngeen ko toppee rek jub su ngeen ko toppee rek jub la moo tax ñuy dund sunna du pour jub lu tax ñuy dund sunna te jubuñ kon topp ñu ko est ce que topp yonent bi yére la est ce que sikkim la est ce que tubéy la est ce que muuraay la lan la ñuy topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lan nu mu doon dundee ci lépp du ñu bàyyi dara mais au contraire aujourd'hui dañu yor tame dañuy segg di tànn lu nu neex intéressé yi ci ay melokaan tubéy yu gàtt ak ay mbaxne sikkim yi kaala yi xamis yi ñu daal di koy jël yeneen li li nga xam ne moo nekkoon nag au fond li ñu doon dot doyee sunna te mooy jikko bu rafet bi ñu daal di koy teg de côté moo tax tubaab bi sonnatuñu ci yenn dëkk yu mel ne comme Sénégal di fa yo- sànni ay bomb di fa déedéet ñun dañuy toog rek xam ne nañu yàqu nañ ba pare jaratul jaratul ñuy yónni ay bomb benn waaye da doon wax ne Senghor dafa réussir mission balaa muy bàyyi Sénégal ñu ne ko lan la réussir mu ne biñ ne Sénégal 95 pour cent musulman lañ mu ne dinaa fexe ba ñu nekk ay faux musulman est-ce que nekkul léegi nag jikko ji yàqu jooju ñuy wax est-ce que dañuy wax nit ñi seen jikko yàqu na rek ñun bokkuñ ci ñun suñu jikko yàqu wala dañuy wax ne jikko nit ñi yàqu nañ rek ñu amuñ ci benn mission amuñ ci lépp lu ñuy lu ñuy ci def ñun te ku xool tey alxatar almuhaddaq bil islam yazdaadu yowman baada yowm danger yi attaqué l'islam chaque jour dafay yokk jour bu nekk di nga dégg l'islam lu ci xew gis ngeen semaine passée ab jullit lañ jàpp ci liñ wax rey ko lakk ko sànni ko ci géej gi ab jullit loolu tey bu ko benn jullit defoon ab yahud kon siècle bi yëpp loolu mooy nekk ordre du jour mais xoolal jullit te li graaw mooy am na ci jullit ñoo xam ne sax dañ cee kontaan da nga leen romb ñu ne mais yow seen waa ji yi gis ne gars yi rey nañ ko day gis jullit bu la ci kontaan am na jullit yoo xam ne da nga leen romb ñu ne la maa ngi lay jaale si gindi gaale nga ni lu xew ku dee ñu ne ah seen waa jooju daal di wax turam suba gars yi rey nañ ko wala moom bokk ci am na koo xam def ñu romb naan ñu waxoon naa leen ko xoon naa leen dinañ leen rey loolu lu koy wane lu muy wane xam nga kooku tubaab yi réussir nañ fexe ba jullit léegi amatul yëg-yëg ci mbokkum jullitam jikko bu yàqu weesuwul loolu kon mbon weesuwul loolu wal qaa'imuna ala muharabati al islam wa shari'atihi la yakilluuna wala yamilluun ñi taxaw di xeex lislaam ak ay yoonam ak doxalinam ñooñu dey du ñu tayal du ñu yokkat waaye dañu taxaw di def bépp effort pour lislaam bi bu mu mus a taxaw ci kaw suuf bu ko kenn mus a dund moo tax mboolem mooy gis ngeen semaine bi passé France dañu tere jigéen muy nixaab ci place publique au contraire sax boo ko defee dañ lay jàpp di la diri ci tali bi yóbbu la pour nga fay am na yenn place yoo xamante ne lan lañ leen wax bu ngeen di julleeti juma bu juma bi feesee na ngeen arrêté bu kenn julli ci mbedd bi kenn dootul julli ci biti France ci mbedd bi ci biir rek léegi nan la ñuy def dañuy diviser jàkka yi mosquée yi par deux bu ilimaan bi ñëwee jiite ñi julli après mu sëlmal ñooñu dem beneen ilimaan ñëw jiitewaat ñeneen ñi lépp ci biir jàkk bi wala ñu julli ko benn ajjuma benn vendredi te duñ xaj ci jumaa ji lu ñuy def ñu def ko ñetti julli ñaari julli juróomi julli ci jamono yooyu julli ñi ñoom yëguñu sax lu xew mbokk yi lii lu ndaw la pour wan leen ne l'islam fi mu toll tey ci àddina bi waaye lii lépp ay yoon la yoo xam ne dañ koo rëdd tëral ko ngir umma bi yàqu ngir ñu jaarale nit ñi fu yàlla bëggul lu kenn munta weddi loolu mooy léegi dafa daj monde islamique dafa daj dafa daj yépp a yàqu julli ñi lan lañ dese ci lislaam tur kese lañ dese ci tur ci islaam alxuraan baa ngi ni ñuy jàng ñu kenn dund ko ñu ngi julli mais julli amul lu muy saf koor day xiif rek la da ngay xiifal sa bopp amatul lu muy jeexital ci yow ibaadaat bi amatul benn njëriñ ibaadaat lan moo taxoon mu jóg ibaada lan moo taxoon mu jóg mooy laallakum tattaquun ya ayuha alladina amanu wala ya ayuha annas ibudu rabbakum alladi xalaqakum walladina min qablikum laallakum ragal taqwa moo taxoon mu jóg ibaada boo gis rek taqwa moo tax mu jóg julli pour nga am taqwa la koor pour nga am taqwa joxe azaka dem màkk pour nga am taqwa tabaski pour nga am taqwa bépp ibaada bu ñu yàlla sant pour ñu am taqwa la léegi ñu ngi def ibaada yi te mënuñu am taqwa est ce que kon ñu ngi koy def defuñu ko maanaam mbir mi suñ ko doon misaal portable la bu amul réseau portable baa ngi nii rafet na nangam marque Nokia mais amul réseau carte banque ci biir amul réseau est-ce que am na njëriñ dina wuyu léegi mooy jullit jullit yaa ngi nii mais amuñu réseau seen réseau dafa dafa coupé seen diggante ak seen borom. koy dégg ci xeet wi koo gis góor ak jigéen danaa man dama am dooful iman sama iman bi daal mënul yéeg te imaan moom su noppee yokku rek day wàññeeku imaan lan moo koy yokk mooy jaamu yàlla comme jaamuwunu yàlla nag sunu ibaadaat du dem sunu sunu imaan du dem lan mooy jaamu yàlla mooy mbir mi ngay def nga def ko xaasa lillah na nekk ngir yàlla ngay wéet di ko def di feeñ di ko def di ko def ngir yàlla mais xam ngeen ne suñuy wax dëgg ñun ñëpp suñuy yëngatu tey àdduna la yëpp cëpp cëpp yëpp àdduna la même gis nga waxtaan yi ñuy def nii bu ñu paree dañu naan neex na dem na yi ceeb yi tey si yow de tardé nga la ilaha illallah nen yi ñu ci def yàpp bi jus bi ceeb terminé léegi nag ñu am problème te jikko mbokk yi moom mooy diine jikko moom mooy diine jikko fan la nekk ci nit damay laaj jikko fan la nekk ci nit pour ñu war a baaxal foofu pour nit baax ah ci xol jikko fan la nekk ci nit ah ci deret bi ci ruuxam ay laaj yi bëri na de nañ ci xalaat ba ñu pare ñu wax ñu ku nekk fan nga xalaat ne jikko foofu la nekk après insha allah yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn waaye dafa ñëw ci moom jóge ci kanamam ne ko yaa muhammad ma diin mu ne ko ad diin xusnul xuluq yow yeneen lan mooy diine mu ne diine mooy nga rafet jikko kon diine li nga ciy dégg mooy nga rafet jikko soo amee diine te rafetoo jikko amul njëriñ yow amoo diine moo tax ñu laaj Ibnu Abbas benn jigéen ak boo xam ne day julli guddi di wor ba cëkk waaye day lor dëkkandoom mu ne laa xayra fiha hiya fi naar ndaw si baaxul ma nga safara te dégg leen wax ji mu wax day julli guddi di woor ba cëkk tey yow mi nekk góor su la sa benn waaye waxoon am naa benn xale bu jigéen buy woor bëccëg di julli guddi amul jëkkër kaay ma may la ko looy wax te yow nga bëgg a takk looy wax nan dem balaa ñu ngay jiitu waaye xool ibnu abbas lu mu wax mu ne laa xayra fiiha ndaw sa su baaxul lu tax mu ne hiya fi naar limaasa mu ne kaana tuzi jiiraana ndax day doon lor ay dëkkandoo kon ku am diine sa jikko day baax looloo tax dooy lor say dëkkandoo ak diin xusnul xuluq diine mooy nga rafet jikko waa ji daal di génn bi muy ñëw ci yonent bi ci kanam la ñëwoon waa ji daal di génn ay minute mu ñëw ndeyjooru yonent bi daal di ko fëgg mbagg ndeyjoor ne ko yaa muhammad ma diin mu ne ko ad diin xusnul xuluq diine mooy nga rafet jikko waa ji daal di génnaat daal di wiiri ñëw càmmoñ fëggaat yonent bi yonent bi gees xool ko mu ne ko yaa muhammad ma diin mu ne ko ad diin xusnul xuluq waa ji génnaat mu ñëw ci ginnaaw ñeenti côté yëpp ñëwee na ñëw na ci kanam ñëw na ci ginnaaw ñëw ndeyjoor ñëw càmmoñ benn laaj lay laaj benn tontu la ko yonent bi di tontu yaa muhammad ma diin mu ne ko ad diin xusnul xuluq ñeenteel bi yonent bi ko xëcc mu toog yonent bi ne ko innama bu istu li utammima makaarimal axlaaq yàlla daf maa yónni pour ma mottali jikko yu rafet yi ma mottali jikko yu rafet yi li utammima makaarimal axlaaq wa qad suila ayul muminina afdal imaanan fa qaal axsanuhum xuluqan laaj nañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ne ko ñi gëm yàlla kan moo ci gën a baax ngëm mu ne mooy ki ci gën a rafet jikko lu tax tey ñu am problème mu jikko lu tax mooy dañu jël diine bi ci kaw ñu bàyyi biir bi loolu mooy suñu problème dañu jël diine bi ci kaw loolu ñu naan zawahir yi feeñ sikkim mbax ne kamis tubéy soccu xam nga loolu dafa feeñ ci biti ñu bàyyi nag ci biir li foor a nekk moo tax jikko yi baaxul góor ak jigéen ma dinaa leen jox benn misaal rek tey mouvement islamique bokk na ci problème bi ñu gën a am bu sérieux mooy sëy góor ñi mënuñu yor jabar jigéen ñi nanguwuñu sëy léegi sax da ngay di xale jigéen ñi naan man du ma sëy ak ibaadu lu tax problème bu bu dangereux la bu ñu am lu ko waral muy jikko yee yàqu bu njëkk ba ku ñëw di dund sunna liñ lay wax mooy da ngay defar sa biir tey biti bi ngay defar boo commencé rek bàyyi sikkim bi mu génn bu dee jigéen nga commencé muuru egg nga bu góor amee sikkim jigéen muuru rek egg nañ waaw léegi sunna piir nga waaw fekk démb ku ñëw am na ñu fi nekk mun nañ seede lool dañ lay defarloo sa biir ci jàng quran ci def ay azkar di tudd yàlla di woor xool ay ayaamul biit ay ayaamul biit di woor lundi ak jeudi ah léegi ak a néew nga dajeek mbokk lundi mu woor wala jeudi dinaa fi la guddi boobu démb koo gis jëm bi dafa ñuul ko c'est parce que dañ doon defaru te saxaaba yi loolu moo leen defaroon yonent bi 124 000 saxaaba la amoon kan ngeen ci dégg ñu ne ku doy waar la woon wax leen ma kenn 124 000 ñëpp normal góor ak jigéen amu ci kenn ku doy waar ñëpp jub ñun moo tax ñu sax 100 personnes suñu mbir doy waar lu tax mooy defaruwuñ kon fokk ñu defaru saxaaba yi dañoo defaru woon lan moo leen defaroon mooy quraan quraan moo defaroon seen biir defar seen biti ba ku leen gis doo xool ci ñoom yére doo xool ci ñoom melokaan mais seen jikko ngay xool laaj nañ usaama ibnu sharik mu ne shahidtu al aariba yasaluuna annabi yaquluuna ma xayru ma utiya al abd qaala xuluqun xasan usama ibnu sharik nee na fekk na arab yi wër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko laaj naan ko jaamu yàlla yi lan mooy li gën a baax liñ leen jox jaamu yàlla bi ban kado moo gën a rëy bu ko yàlla may yonent bi di tontu naan leen jikko bu rafet yonent bi sax bal dafa ne xayrukum fil jahiliya xayrukum fil islam gis nga bañ nekkee ci ceddo ga ba nit ñi jaamul woon yàlla ki fa gën a baax bu ñëwee ci sunna mooy gën a baax imagine leen nit di dund sunna ngeen baal ma de jigéen di dund sunna dangal dangal di dund sunna dóor sentir bu seere waaw nga ne yow da ngay dund sunna loolu mooy sunna wala nga sol tiset yemale ko fii sa mbagg yi fii ñu ne déet nga dem jàngi nag waxuma la nga fóot sax nekk ci biir kër gi di fóot de nga dem jàngi ak tiset bi waaw ngay dajeeg nit ñi ñu lay xool ni jax ñu ne yee nga ne yow mesure nga bokk mesure loolu mooy mesure mooy na ngeen dangal na ngeen sol ay tiset na ngeen cëkkal seen kol yi loolu mooy mesure yéen loolu ngeen leen digal loolu mooy jikko waaw ngeen nax seen bopp yenn saa yi ma wax waa daara ji mel leen ñun ñëpp nañu moytandiku lan la ñu moytandiku mooy noosatuñu àdduna alaaxira ñu dem safara déggu leen lu ma wax de ma ne noosatuñu àdduna lan mooy noos àdduna Sénégal mooy baali déglu musique dem ci boîte yi dem ci géej yi cëpp cëppax du loolu mooy noos Sénégal est-ce que yéen di ngeen ko defati xam nga ñaanatu leen ko yàlla ba pare nag ngeen dee yàlla jël leen ak ñooñu doon ko def dugal biir saxara est-ce que du perte lan moo ko waral mooy nga bàyyi nga bàyyi lee ba pare nga dugg ci lii te lii sellul lii dafa war a sell sunna dafay sell yàlla dafa wax ci Qur'an aaya boo xamante ne ku xëy suba balaa nga doon génn sa kër da nga ko war a liir mooy lan rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu saalihina fa innahu kaana lil awabina gafura yàlla nee na yéen ñii seen bopp man maa leen gën a xam seen bopp rabbukum a'lamu bima fi nufusikum yàlla xam na li nekk ci yéen saal bi fi ñu toog nii yàlla xam na ñan ñoo fi sunnit ak ñu fi dul sunnit ku mu doon ci ñun yàlla xam na la am na ñoo xam ne yàlla xam ne dañ fee toog nii mi duñu ay sunnit yàlla dafa doon wax ci quran ñi waroon yonent bi saa sallam wa minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu alaaxira yéen ñi war yonent bi xoola saxaaba yi de yéen ñi war yonent bi ñu ne ah yàlla ne am na ci yéen ñoo xam ne àdduna doo nga tax ñu toog fi du yonent bi de du yàlla du man du kenn àdduna waaye am na fi ñoo xam ne nag gëm alaaxira moo tax ñu toog fi am ñoo xam ne nag àdduna moo leen fi bàyyi ñan lañ doon wax loolu saxaaba yi da yàlla doon wax ne am na ci yéen ñoo xam ne li ñuy wax du dëgg addunaa leen tax a jóg ma sama ak ñun kon bu nax suñu bopp olof yi dañuy wax ne ku nopp nax sa bopp sa aajo faju mbokk yi wa hada rasuluna al karim sallallahu alayhi wa sallam yuqirru anna afdal al muminina imanan ahsanuhum xuluqan wa anna xayru ma yu'ta al abd xuluqun xasan yonent bi saa salaam mi ngi nii di saxal muy leeral di wax ne jullit ñi ki ci gën a baax gëm mooy boroom jikko bu rafet mu ne jullit ñi ki gën a baax li ko yàlla may mooy ki yàlla jox jikko bu rafet bal sax dafa ne moom yonent bi li tax yàlla yónni ko mooy château boobu ma leen doon wax sànq na ñëw mottali ko mooy jikko jooju ñu doon tabax moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla daf koo yónni pour mu ñëw mottali jikko boobu wa azamu ma tuanihi l umma al yawma daafu lwaasiu diini wa fasaadu l axlaaq wa mawtu ruuhu l baas wa isaalatu l fikriya tomb yi ñuy wax léegi ci kanam mooy tomb yi dal aalamul islaam yi mooy feebar bu ngand bi lii bu ñu ko fajoo rek ñun ñëpp dañuy wér bi ci njëkk mooy daaful waasiu diin yi gëm-gëmu diine yambare gi mu yambare ci suñu xol yi loolu mooy sunu problème bi gën a rëy mooy gëm-gëmu diine yambare gi mu yambare ci sunu xol yi ñàkk gëm gi ñu ñàkk gëm diine gëm bu dëgër bu leer loolu bokk na ci li feebar alamul islaam yi xoolal jullit ñi ni ñu baree ci àddina bi mais xoolal ni ñu yambaree bu ñuy wax àdduna sax dañuy xaw a jaaxle waaye nañ jël misaal rek sunu réew Sénégal ñun ñoo fi ëpp jullit yi mais xoolal ni diine bi yambaree loolu mooy ngëm-ngëm bi moo baaxul foofu soo fa ñëwee da ngay gis pas-pas baa ngi fi nit ñaa ngi julli ñu ngi woor waaye nag pas-pas bi moo wérul li ñu gëm moo baaxul loolu da nga gis lu nekk lu nu woote rek julli ñi daal daw wuy ji dinaa leen jox ay misaal yu ndaw loo xam ne lu ñu woote jullit ñi wuy ji ba ci ñi muuru ak ñi dund sunna ay semaines yu passé Sénégal demoon coupe du monde n'est-ce pas jamono ba joueurs yi ñibbisi ci télé bi ci trottoir yi ci mbedd mi saa yu ñu wootee nit ñi di sibile nga gis ay borom kaala ci biir d'accord ngeen suñ demee stade ngeen gis borom kaala ci biir instant bii ñu toll làmb ji moo aag chaque jour bu ñu wanee stade nga gis ku ku muuru nekk ci biir sol ti setu benn mër di yuuxu loolu sax dafa tuuti mais fii nu toog nii bu benn mbokk jógoon di contrôler saag yii balaa muy egg fond bi dina fekk benn saag bu am photo mbër wala portable yii benn mbokk léegi jóg di contrôler portable yi balaa muy egg fond dina fekk fii benn portable bu am photo mbër ma wax ko mu jóg contrôler ah kon loolu misaal la rek pour ñu bañ a nax suñu bopp ñun dafa am koo xam ne fan lañ bokk nekkul wolof yi dañuy wax ne nekkul kër lu ñu dégg rek ñun ñu dem wàlli yaan yi déedéet bu nax suñu bopp chaque jour may wax ne bu nu nax suñu bopp nan góorgóorlu bu nu nax suñu bopp mbokk yi góor ak jigéen ni ma koy waxee jigéen ñi noonu laa koy waxee góor ñi bu nu nax suñu bopp xabdu taxul nga nekk sunnit am sikkim taxul nga nekk sunnit gàttal sa tubéy taxul nga nekk sunnit ay jëf la bu nax suñu bopp ne man ci sunnit yi laa bokk taxul boo dee ngay da ngay dem aljanna yaa Muusa laa taaman makri xata tara nafsaka fil janna Muusa bul wóolu sa bopp lu nga gis sa bopp biir aljanna Abu Bakar ahadun min al mubashirina bil janna kenn la ci ñuy dugg aljanna yonent sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax mu ne sama tànk ndeyjoor bu ñëwee góos bi ñëwagul wóolooguma est ce que Aboubacar dégg ngeen mu def lu ko yóbbu safara dégg ngeen ko liir ngeen ko fenn te dégg ngeen mu ne bu tànk ndeyjooram duggee càmmoñ bi ñëwagul wóoloogul xoolal us xoolal Ousmane kazalik xoolal Umar kazalik ñoom ñëpp ñenn lañ ci yonent wax ne yéen da ngeen di dugg aljanna te ñoom nee nañ wóoluwuñu te dañoo jaamu yàlla ba dee ba tas ba ñu faat leen sax ñu génn àdduna ñu leen di rey ci islaam ñun defaguñ dara am kóolute ñun duñu naafila guddi duñu wóor lundi duñu wóor jeudi duñu jàng alquran duñu zikr rek ne ñun dugg nañ aljanna ñun defuñ dara de ci ibaadaat yi ñun daal xanaa qabdu lañ def qabdu allahu akbar daal di qabdu am sikkim ñu ne dugg nañ aljanna looloo tax ñu war a góorgóorlu bañ a nax suñu bopp iman lañ war a am iman sahabatul kiram bokk na li taxoon seen jikko yi baax mooy dañoo amoon iman ñoom dañ doon xaar ay wàcc rek ñu daal di exécuter ñun nag am nañu alxuraan waaye dañuy xaar iman loolu mooy premier tomb mooy daaful waasiul imaan yi daaful waasiul imaani mooy yambare bi ngëm gi yambare ni yambare bi ngëm gi yàqu ngëm gu doy waar ngëm goo xam ne kenn xamul lu jullit bi gëm wala lan moo tax tey ñu ne Sénégal dafa bëri ay yàlla yàlla ñuy gis yàlla dafa bëri ay tarixa yu kenn xamul chaque jour tarixa yi di yokk woote yi di yokk nit ñi di wuy ji parce que ngëm-ngëm bi moo baaxul su fekkoon ne ngëm bi leer na lu bari ci ñun duñ ko def bal sax ñooñu chaque jour damay wax ne bu ñuy waxtaan ak ñu mel nii jarul ñuy tudd ñooñu waaye ñun suñu bopp rek nga fekk ay programme yoo xam ne neexul yàlla neexul yonent nga fekk ab jullit bu góor wala bu jigéen toog di ko seetaan ma joxe benn misaal fii ñu toog ci biir saal kan moo dul seetaan làmb fii ku dul seetaan làmb waaw yéen di rëcc ngeen ñett nit ñoo yëkkati loxo ak saal bi ni mu feesee yéen yéen xam ngeen ne làmb dafa aram yonent bi saa salaam mu ne yal na yàlla soril yërmande ki ñuy xool awraam ak kii xool awraam wala du hadis laana allah annazira wal manzuru ilayhi ki futteeku ba ni dumm yaram awraam nekk ci biti yonent bi ne nag kooku yal na ko yàlla soril yërmande ak ki koy xool yéen ngeen jàkkaarlu góor mu def yaramu neen ngeen koy xool su fekkoon ne jigéen góor ñi laay laaj laaj bu fekkoon ne jigéen moo futteeku ba mbër mbër ba mel ni mbër mel jigéen ñi lay laaj laaj bu fekkoon ne góor moo futteeku astaghfirullah góor ñi lay laaj laaj bu doon jigéen moo futteeku ba mel ni mbër mel soo koy xool looy xool ci moom dafa mën a bëri ngay xool dafa jàpp ngay xool dafa seene ngay xool looy xool doo ma kenn wax ma lu muy xool fekkoon ne jigéen moo futteeku ba mbër ba mel ni mbër mel looy xool ci moom boo xool voilà loolu nag moom la jigéen ñi di yëg aussi bu ñuy xool ci góor benn la naf su sëy dafa am benn maire déglu leen wax leen baax maire bi day seetaan mànga jamono yi muy bëree mu xool ko xool ba càgg mais ci kii ci koo jëm yi comme ci kepp dégg nga fi mu waxee loolu moo lay wan ne lii ñuy xool du seetaan kese moo ci nekk waaye xam nga fan la rusloo mooy ab ab kuy dund sunna ñuy dund sunna man daf may man daf may jaaxal yenn saa yi sax ci programme yu mel nii ñu ne non dimanche bi bu ñu ci def programme parce que diw di ñoom di dafa am combat daf may jaaxal su ko defee bu gars yi insister def ci waxtaan nga dem waxtaan bi nga fekk fa juróomi nit am na fu ma demoon ci combat yu mag yi ma ñëw fekk juróomi nit ñu commencé waxtaan bi waxtaan waxtaan waxtaan waxtaan ba ñu dégg yuuxu yi ba affaire yi tas mbokk yi commencé ñëw ma arrêté waxtaan bi dem ñëwee. nañ nañ ragal yàlla ñun yàlla woo niw ñu pour ñu nekk ay mbër yàlla woo niw ñu pour ñu seetaan bër bëre benn misaal ñaareelu misaal mooy li benn ngelaw la lu fi jaar rek te ñoom ñi koy organiser dinaa joxe ñaari tur. ci promoteur yi gën a mag ci Sénégal karakan la Gaston la ak Gaston est-ce que am na doom juy bëri millions yi doomam da cee bëggut non dama bëgg ngeen tontu ma ni Gaston laa wax ndax am na doom buy bëri ndax millions yi muy fay doomam bëggu ko waaw lu tax doomam bëriwul est-ce que du yëfu nit mbër li muy def du yëfu nit nit du ko def nit du jaay ngorom ngir xaalis futteeku ba mel ni mbërmër tey bu bu ma ko defoon yéen ñi kenn ci yéen bu xëyoon fajar gis ma sama buntu kër ma def ni mbër def non dama leen waxuma ngeen ree maa ni góor a jigéen laa ci wax yéen ñi xam ma yéen ñii su ngeen xëyoon suba fajar rek bu ñu julee fajar ba ñibbisi ngeen fekk ma sama buntu kër ma def ni mbër def lu ngeen di wax dof na dof na wallahi maa ko gis loolu mooy ne yëfu dof la kon alal jaru ko même bu doon milliard jullit du jaay ngorom du jaay diineem jullit du jaay diineem jullit laa wax de bu ko tumalaag loolu nag ñun bëgguñu yóbbaale sëñ bi ñun du lu jóg ñu dem ñun wala ñu nekk ñax boobu tudd salguuf nga xam ne ngelaw li bu jógee nii mu tëdd nii bu ngelaw li jógee nii mu tëdd nii bu ngelaw jógee nii mu tëdd nii non ñun duñu ñooñu dañu war a defar suñu bopp ba dëkk bi booy toj kenn du ci gis ku muuru kenn du ci gis ab sulit daaw maa defaloon jeunesse féminine xaw ma seen colonie dañ koy tëj Dakar maa ko defoon fin d'année bi maa maa ko tëjoon waxtaan mouvement des femmes waxoon naa amira ma ne ko amira mu ne ma ah ñu woo ko ñetti yoon ma ne ko nanu nañ yaraat xale yi góor ak jigéen bisa ngi ñëw ngeen am goro mbër mu ne ma subhanallah ay ustaas ndax loolu dina am ma ne ko bu ngeen defarul xale yi mu am ñu xëy suba rajo bi ne am na benn mbër bu tax kuy muuru ñëwul dina am ñaareel li lay wan ne déviation dafa am ci sunna tey benn mbër bi dëkk fii suñu wet su ñëwoon fii léegi ci salle bi ne damaa bëgg jabar nga gis léegi ñeenti nit ne asalaamaaleykum naxuma la de wallahi te kooku léegi di yëkkati loxoom naan kii pare naa pare naa pour nga- lan la lan lan la koy lan la koy takkee diine dama leen di laaj est-ce que diine la koy toppee lan la koy toppee pour déedéet du sax alal bi pour pour pour kii siiw na pour kooku yonent bee ko gën a siiw ah est-ce que ñun star moo war a tax ñu jóg star ñaata star ñoo nekk ci bàmmeel yi sànq sama benn xarit dafa ma nettali wax ju doy waar te li tax mu doy waar ci man dafa ne ma benn dof moo ko wax mu ne ma ndar dafa toog ci essencerie bi nii rek benn colonne benn gendarme mu fekk ko fa bu mu xamoon muy waxtaan ak moom ay ba ci agré mu laaj ko ba benn benn benn benn général mu ne ko kooku dee na mu ne ko ah kañ la dee waa ji commencé di toog ci suuf quoi di naqarlu ndeka dof bi mu ngi seen wet mu ngi dégg affaire bi dof bi daal di jékki-jékki rek daal di ñëw fekk waa ji fi mu sëgg nii di naqarlu affaire bi mu ne ko nii sa général boobu du général ki ko tëral mooy général daal di romb dem yoonam xool da koo war a dem yoonam nee na ñoom ñaar ñu toogoon non ñuy xool waa ji waa jaa ngi dem ak ay sagaram ne ko sa général bi du général ki ko tëral mooy général yow mi naan da ngay da ngay kii fii naan ndax star la bàmmeel yi ay star kese la ana ba marle du woon star star mujjul fenn xam nga lu am solo diine mooy mujj wala aqibatu nañ leen defar suñu bopp góor ak jigéen nañ leen defar suñu jikko yi mbokk yi nañ leen defar suñu jikko yi bu nu buggee dund sunna dund sunna du ibaadaat yi ñuy def fi ci biti déedéet yàlla kenn mënu koo nax te ku nekk balil insaanu ala nafsihi basira ku nekk xam nga sa bopp nañ defaraat suñu jikko yi nañ defaraat suñu comportement yi nañ defaraat suñu lépp góor ak jigéen mag ak ndaw insha allah mbokk yi ne ñu jugee wala ñi fi tegoon portable yi ñëw dem
waaw xam nga ni
ah waaw kon mbokk yi nee nañ desaat na 15 minutes waaw ñaareel bi mooy ci yooyu ñu doon wax mooy fasaadul axlaaq mooy yàqute jikko yàqute jikko goo xam ne foo ko natt tey wees na ko ci ci ay doomu jullit barki démb yaakaar naa vend samedi la euh, waaw démb moo doon samedi barki démb la woon vendredi maa jiite juma bi ma defee sama xutba ba pare am na benn femme benn jigéen maa ngi ko fekk ndeysaan ci kër gi nga xam ne bu ñu jullee juma ba pare fa la ñuy dugg añ doog a dem ma fekk mu toog mu ne ma gis nga yéen li ngeen di wax nii ci seen jumaa yi xamul leen sax yàqute gi fu mu yem Sénégal mu ne ma man sama oto laa yor dama ànd ak sama chauffeur damay damay damay yóbbu ci ci hôtel yi ay ginaar mu ne ma gis ngeen dëkk bi lépp a yàqu ay xale yu ndaw yoo xam ne nekkatuñ sax seen biir kër yi ñu ngi ci hôtel yi mu ne ma man dama ciy teg sama bët jaaran ndax damay dem ci hôtel yi di tudd lu mat 100 hôtel yoo xam ne yépp moo chauffeur am ñoo leen di jox ay ginaar far fajar Kër Massar lay départ def otom bi ba mu fees nee na hôtel yépp lay dem nee na moom léegi day julli di ñaan yàlla ne bu mu amati doom bu jigéen loolu nag lu toll noonu nekk ci réew mouvement islamique nekk ci réew moomu te duñ ci am taxawaay duñ ci def effort duñ yëngatu bal sax au contraire ñoom la mbummaay bi di yóbbaale ok tey affaire yi daf ñu yóbbaale ngelaw bi daf ñu yóbbaale suñu sœurs yi frères yi ñooy seetaan ci télé yi ñoo nekk ci affaire yi ay caaxaan ay théâtre man li ma gën a naqarlu mooy nga gis ab sunit boo xam ne sonoreem musique moo ci nekk wala ay waxu saa neex yëfu dof wala ay yu ñàkk fayda yoo xam ne lii xam nga ne du sax diine bu sone woon fii sax ci biir nit ñi nga rus yow nga ne da ngay dund diine sa portable bi nga yor yu dee nga ciy def ay tia ay yoo xam ne sax day xas lislaam kuy julli ñu koy buleeg ngay ree ah kuy non c'est c'est man man yenn saa ay nit day ñëw ne ma xoola xoola xoola damay xool gis yëfu lislaam la ñuy toroxal ah comme gaa yoo xam dañuy jullee néew am na benn waay barki dem benn waay bu ma woon ñuy jullee néew gaa yi ilimaam bi ne allah akbar rek néew bi tëf sànq ñu daw loolu la lan la ñuy saboté waxuma ko pour ngeen di reere loolu lan la ñuy saboté suñu wanee kenn di julli kenn bàyyi ko ba mu sëgg ñëw bule ko lan la ñuy saboté wala ñu wanee kenn di jàng alxuraan di ko yàq di ko jàng-jàng yi doy waar nga gis nit ñi ree dem nañ say jullit day am lu ko metti jullit gis nga fekk gisoo ñuy naqari lislaam am lu la metti nekk ko jullit dangay sonn sa bopp rek fekk gis nga lii may wax nii ngeen koy ree fekk mettiwu leen billaahi wallaahi du ngeen buuse mètre mètre du ngeen ko buuse di ngeen di sonn si rek naan sunna sunna fekk dama leen fan fekk gis nga yii nii ñuy xeeb noonu yàlla yi tëralul ko ndax ñuy xeeb suñu diine ndax ñuy fowee suñu diine ab jullit warul mën a nangu ñuy fowee diine ndax yow li nga gën a cher la ci àdduna muy diine soo xoolee soo xoolee ñuy fowee sa diine di ko def ci ay portable di ko def ci ay di ko def ay théâtre nga toog di ree da ngeen di seetaan saane muy mu yàq xuraan yéen ñëpp ngeen di ree wala ñaata nit bi ñooy seetaan yooyu waxuma dara sax mais ci ñun ñii dañuy jënd kaset yooyu dem di ko seetaan nga xam ne amul la benn njëriñ te tey bu ñu la bëggoon jaay benn kasetu islam nga lànk foo ñu il faut ñu xoolaat suñu bopp yàqute jikko googu nga xam ne liñ ci njëkk a rey mooy kersa kersa mooy alxaya moo doon tomb bi gën a rëy ci lislaam nga xam ne nit bu ko amee diineem ñoŋ na mais kersa lañ dindi kersa fexe ba léegi kenn amatul kersa lu la neex ngay wax lu la neex nga koy waxee lu la neex ngay sol suñ la woowee sax naan la lii nangam ak nangam sa yoon du ci nekk pour yow sa yoon nekk ah man kii kii resuma ko man dund ma ko ah yéen yéen a ko dund loolu loolu du wax yonent bi lan la wax al muslim axul muslim jullit jullitay mbokkam yàlla ne wal muminuuna wal muminaat baaduhum awliyaau baad yaamuruuna bil maaruf wa yanhawna anil munkar jullit bu góor ak jullit bu jigéen ñoo war a far ci digle lu baax mais tere lu bon mais loolu ñuy digle na fekk ñun ñu def ko ba pare a taamuruuna annaasa bil bir fa tansawna anfusakum wa antum tatluuna alkitab afala taqilun ab ibaadu rahman royukaay la war a du nekk am na benn thème bu ma defoon daaw ci école bii li fii nii thème boobu ñu ma joxoon ay ibaadu rahman aimmatun yuqtada bihi boobu lañ ma joxoon foofu ibaadu rahman ay nit lañ ñoo xam ne dañ leen war a roy am na benn kër du ma du ma du ma du ma noppi di ko fàttali kër gi tabax bu yàqu la borom dafa jënd tabax ko ba mu yëkkati ko def ci fenêtre def ci bunt mu dem Italie nit ñi sotti ci mbalit kër gi ba kër gi fees waa ji ñëw mer dem service d'hygiène indi police indi service d'hygiène ñu dugg ci koñ bi di jàpp nit ñi koñ bi yëpp lañ jàpp ndax yéen yéen a fi sotti mbalit ñuy dugg ci kër yi di leen jox ay convocation bu egg ci benn kër sone kenn ku muuru ñëw ubbi bunt bi mu ne ko jàpp kayit gi kooku ne ko lépp pour lan la mu ne ko kër gi nekk fii waa koñ bi ñoo fi sotti mbalit mu ne ko ñun bokkuñu ci ñun waa kër gi bokkuñu ci service d'hygiène bi bëgg a incité police bi ne ko nañ dem ñii wax nañ dëgg ñii duñ tooñ ñii bokkuñ ci mais xoolal xoolal loolu nu mu grawee lan moo tax waa ji am fit ne kii bokk ci ah c'est parce que ñun dafa am lu ñu war a wane mais tey léegi loolu amatul léegi da ngay dégg ñu ne ñëpp a yem rapport yi sax dañ koy woy wala rapport yi léegi dañuy bu seen woy sax dañuy ci dugal gis naa ibaadu bu ñu ah yegguma ci de ci woyu rab yi wala wax waxuñu ko musiba la est-ce que loolu sunna la loolu nag dañ koy wax ngir ñu góorgóorlu mbokk yi ñu defaruwaat xam nga loolu lu ko waral mooy sàggantewu sàggan sàgganewu sa bopp sàggane sa bopp sàggane sa bopp au lieu nga ba nga fegu nga moytandiku takkoo jaamu yàlla nga sàggane sa bopp góor ak jigéen soo sàggane sa bopp rek musiba dal yàqutu jikko goo xam ne dem na ba tey loolu ñu naan jëw wala ràmbaañ ah léegi loolu amatul problème te ku bëgg a jëw xam nga lu muy wax mbokk yi mbokk yi de moom mbokk yi de moom mbokk yi de moom mbokk yi de moom mbokk yi de moom ku bëgg a jëw loolu ngay wax ku bëgg a ràmbaaje loolu ngay wax di jaxase ah ñun démb lan lañu waroon démb lan moo doon sunu sunu rôle démb mooy li yàlla wax ci quran ayuhibbu ahadukum an yaakula lahma axiihi mayitan fa karihtumu jëw bu ñu demee bay jëwante sunu biir di lekkante di tas ay kër di tas ay diggante di tas ay sëy ci ñoo xam ne ay roykaay lañ woon ñoom la société bi doon xool ci ci Kër Massar dafa am ay mbokk benn mbokk bu fa am problème benn mbokk bu doon liggéey la benn waaye jox ko xaalis bu bëri na ko defaral ay mbir mu dem lekk xaalis bi waa ji yóbbu ko gendarmerie ñu ñëw dugal ko kaso ndeysaan mbokk yi yëg loolu ñoom ñëpp ñëw gendarmerie quoi ñëw di wax di wax ba benn gendarme nekk mu seen wet nan ah kii ibaadu la liñ koy wax defu ko nangam ak nangam mu leen eh eh eh eh kaay leen kaay leen ñu daal ñëw mu ubbi buntu giri bi ni leen ñi ñëpp ay ibaadu la giri bi fees dal mu ne ñëpp ay ibaadu la bu leen ñu tànqal naan ibaadu ñi ñëpp ay ibaadu la léegi kon lan mooy ibaadu rahman bu fekkee boo ubbee kaso yi fekk fa ibaadu rahman ñii tiriyaande ibaadu rahman yaa ngi ci ñii jaay seen bopp ibaadu rahmaan yaa ngi ci rappeurs yi am na ibaadu mbër yi am na ibaadu léegi lan mooy ibaadu damay laaj lan mooy ibaadu rahmaan bu ñu paree laaj naa leen ñaari laaj balaa ngeen may laaj man maa leen njëkk laaj jikko fan lay nekk ci nit lan mooy ibaadu rahmaan bu ñu jullee ba pare bu ñu ñëwee yéen balaa ngeen may laaj da ngeen ma tontu sama laaj boobu ba pare
waaw léegi xam naa dañuy def kii yëpp rek ñu jël vingt millions de dollars ak ñuy def seen